Sénégal ñëpp ñi ngi naan Cheikh Moustapha Al waaw waaw di ko yàlla baaxal di yëngu ci wàllu ñaan di borom baatin bu mag bu ñëpp ràññee adresse am mooy Zac Mbao cité Cyprès foofu la Cheikh Moustapha Al Karim nekk yow mi am koy bëgganteel nga bëgg mu jublu la Cheikh Moustapha Al Karim da yëngu ci wàllu noo boole leen ba ngeen mën a cereek soow yow mi bëgg ubbeeku wàllu am-am Cheikh Moustapha da ci yëngu ay sacrifice yoo xam ni du am benn effet du am benn conséquence yéen ñi bëgg bay bayre taw leen seeti Cheikh Moustapha Al Karim moo ci aay ba noppi nag bay joxe ay jaaro xaqiiq yoo xam ni ku ko takk te doo tàggoog bayre faiblesse sexuelle xam ngeen ni sonal nañu bari Cheikh Moustapha Alkarim day yëngu ci wàllu nguur day yokk tamit awra bu tuuti bu mënul dara adresse am mooy Zac Mbao site Cyprès foofu la Cheikh Moustapha Alkarim nekk lépp lu waay bëgg ci xeetu ñaan lépp lu jëm ci wàllu ñaan bu jëm ci yaramu doomu aadama Cheikh Moustapha Alkarim dalay liggéeyal ba nga gis nga dog koo fay ci lu leer naññ ci lu wóor te gaaw numéro téléphone am 78 596 66 09 wala 77 594 33 77 ak Cheikh Moustapha Al Karim dalay defal nga gis nga door a fay. leen yu baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay ñoo ngi fii ci stadium Iba Mar Diop tey surne Sam Mbaye production grand combat bi dox ci diggante Papa Boy jinne ak xale bi nga xam ne mooy Sako Balde ni may waxee yéen Papa Boy Djiné moo njëkk a dugg si Sako Balde ñëwagul mbër yu ndaw yi tamit ñi ngi ci biir am na ñu tuus ba pare yaakaar naa ne léegi premier combat bi jàll Papa Boy Djiné nag taalibe seex taalibe seex yaakaar naa ne gaa yaa ngi noonu mu ànd ak waa Waalo Alioune Seye junior taalibe seex dund Mathieu Pereira Boro Alioune Seye 2 grand Lirou Diane le grand monument xeebalul xale yi seen bis ñoom waa Waalo ñu ngi noonu ànd ak caat bu Waalo ak mbaytin booy pir ñaa bu ndaw macha allah Waalo daal ikiri Waalo daal dama naan gàcce ngalaama <laughs> grand coach kër Turon maa ngi lay ziar mi ngi noonu jërëjëf jërëjëf chef papa booy jina mi ngi noonu di waaj a wàcc ànd ak Maguette sek booy ñaa 2 Aline Sey 2 Lirou Diane <laughs> euh, ngi noonu ànd ak Mathia Pereira eh ànd naa ku ma xam nag ànd nag sëriñ bu ma xam kii nii. eey <laughs> laay laay la laa cey ji làmb waay laay la laa waay pigin waay coach mi ngi noonu coach Roon macha allah papa booy jinne gars yi ñu ngi ko di wàcce bagage yi calmement ànd ak euh, majji majji ma caat bu waalo baro maca perera booy ñaabu ndaw mbaytin 2 magat sek liru diane alin sey macha allah mi ngi wàcce ay bagaasam calmement moom Papa Boy Djiné am na mbër bu wiiri noonu di dugg dunda ngi noonu yer bagaas yi Papa Boy Djiné ngi noonu mi ngi ci biir oto bi wàccagul ñoom ñëpp ay kaala yu weex lañu yor Kalidou ñoom ñëpp ay kaala yu weex lañu yor kaala woo ko waa écri waalo bi yëpp ku nekk jël na kaala bu weex danga kaala woo <laughs> seet seet seet xale yi dañoo décidé de waa Pikine nag ñëwaguñ ah Kalidou arbitre ya génn nañ de <laughs> waaye doxalal maa ngi cay bàyyi xel Papa Boy Djiné ñoom ñëpp kaala yu weex avancel tuuti rek waaw jaajëf ñoom ñëpp kaala yu weex lañ yor dëppoo ay leket mu mel ne Papa Boy Djiné tey jiini nii si na dugg bi nga xamante bi ni mbër bu mag moo ko daa dugg see moom Papa Boy Djiné ñi ngi noonu ñoom waa Waalo rango ay col yu weex jël ay leget dëppoo ko waaye Papa Boy Djiné wàccagul Djiné bu ndaw ma nga nële may gis ñi ngi dugal bagage yi calmement ndànk-ndànk xam naa ne presse baa ngi ci biir waaye yëgagu ne Papa Boy gis nga loolu ak taseer la ñu jël ay butéel def ci gàllaaj ay macha allah waaye macha allah mi ngi noonu jàppoo nañ ko moom booy Niang 2 wàcce na ko arbitre yaa ngi noonu wallaay ndeysaan kenn amul seen fay Papa Boy jinne wàccagul oto bi ma nga na la dëppoo leket gi bu ndaw nga na la di wàcce waat beneen taseer mu mel ni taseer yi bari na ci kaw macha allah booy ñaar numéro ngi noonu Maga sek waa Ikri Waalo ngi noonu ñu ngi discuter di wax ak Côte Suron Côte Suron di wax ak Taalibe Seex taal Taalibe Seex yow ak yow yow ak Suron sax da ngeen a ñaari Taalibe Seex <laughs> mi ngi noonu xanaa sa yaram daa tàng eh, maa ngi siyaar la jantal mara <laughs> tey Papa Boy Djiné la ngemb gis nga leen ñu ngi noonu yor seen butéeli 10 am na ku yor taseeru nen mi ngi noonu yor ko macha allah waaye waaye waaye ba tey ah safaraa ngi noonu wextan ba école de lutte Fadam ndeysaan waaye ba tey papa wàccagul ba tey papa booy jinne wàccagul macha allah leeru jaana ngi noonu. la ilaha illallah Papa Boy Djiné oto bi ba tey wàccagul fii la bëre woon ak bëre bu rëy ba fii daane woon Nokia moom Papa Boy Djiné ndeysaan waaye tamit bu leen fàtte fii la daanoon xale ba waay damay fàtte tur ba stade Iba Mar bii la ko daane waaye tamit bu leen fàtte fii la daane woon wulli moom Papa Boy gaa yaa ngi dugal bagage yi calmement léegi bagage yi jeex de bagage yi jeexee rek mbër bi wàcc. ay laay la la Sambay production ma nga noona promoteur bi mooy Luc Nicolaï numéro 2 moom Sambay. combat spécial bi di ngeen fi am Boylo ak Pape Diouf doomu mbër bi waaye fi am caatu sam-sam ak Kayta Kara. xale bu bon bëree ngi noonu nañ ko bàyyi xel. kan la. mooy Pape Diouf. waaw Pape Diouf la waaw doom de Serigne Ndiaye. non ndaanaan. waaw. waaye mi ngi bëree ku tëx. moo ngi bëree ku tëx dégg naa. Oh, booy la ku am jom ku wowle. Ah, tay la tay xam nga dégg naa mbër da ngay wowle wowle. kooku ci kanam gi mel ni maanaam. carrière xeeru carrière mbër da dëj wowle. Papa Boy Djiné wàccagul. Papa Boy Djiné ngi ci biir oto bi xam naa ne léegi mu wàcc ay laay lala gaa yaa nga ca bagage ba tey foo tollu Kalidou papa ngi noonu génn ñu koy tegal xobi poftan laay laay